amoon fii comité de gestion boo xamante ne délai dafa jeex depuis si temps corona bi ñu rapporté ko six mois léegi nag bi six mois yi jotee préfet organiser élection mu ne nañu bindu ba pare ñu dem ci élection bindu bi commencé le neuf man maa nekkoon représentant benn parti bee bi man ak keneen ku ñu wax Moussa Sow depuis ñu commencé nag chaque jour. ñun suñu yi nga xam ne ñun ñoo ñoom ñoo féete su ñun suñu ñëwee parti A bi danañ jéem a indi xajamal ñu jéem a seddal bàyyi mu sedd ba keroog ñoom seen bopp ñu dem indi ji ay nit jëli leen feneen foo xamante ne ay mécanicien lañ ak ñoo xamante ne ñun xamuñu leen sax parce que ñun si daral bi fii la ñu nekk ñu nekk si daral bi yëpp xam nañ leen mais am na ñoo xam soo leen indee fii te ñun suñu bët mosu koo gis te koo laaj mun la xaw ma kii nii mun nga wax man kii du bind fii nii biñ ko waxee ñu ñu amu leen baare inscription bi da ngeen di mun a def lenn ngeen contesté ngeen wax liste bii nii ba liste bii nii da ngeen ko contesté su demee ba affaire bi jeex ngeen bind ko envoyé ko sous-préfet yaa ngi dégg loolu depuis ci jeudi bi passé la woon le 19 je crois la woon page cinq septième personne ba page 73 bind bi nag tey la jeex le 23 bi bind bi jeexee. ñu calculer nit ñu bind ñi mu nekk mille cent quarante huit ci mille cent quarante huit bi nit ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon ci ñu ñu contesté ñi ci mille cent quarante huit boobu la bokk eh, ki doon bind ki indi bi mu ne nañ signé PV bi ñu ne ko non duñ PV bi su fekkoon ci mille cent quarante huit bi dañ ci génn cent cinq personnes yu contesté yi wala ñu seen tour nekk ci biir cent cinq personnes yi ñu mun ko signé mu ne ok am ngeen droit ngeen bañ a signé ñeneen ñu signé ñun signé wuñ léegi nag comme ci réewu euh, loi la ñu nekk. te ñun ci élection la ñu jëm li ñu jëm ci élection bi nag ñun waxuñu kenn nag ñu faral wala waxuñu kenn dañoo dangaa far ñun lu ñu bëgg nañ ko def élection bu transparence mais lu nga xamante ne foo écouté sa wax rek ñun la doo fi waxee wala li ngay def li du nekk te loolu après dañ dañ koy appliquer mu nekk ñoom li ñu wax li loolu tamit dafa xaw a xaw a suñu xol quoi léegi nag su fekkee ñu bëgg ñu dem ci élection nañu jël ay mesures yu nga xamante ne wóor la ñu doog dem ci élection PV yi nag ñun signé wuñ ko signé wuñu ko tey signé wuñu ko parce que suñ ko signé dafa mel na ñun nangu nañ li ñu doon bañ li signé wuñ ko nag pour l'instant waaw. dafa mel ni police daf leen a ñu wuñ. xam nga ci arrêté bi lu ñu bind ci arrêté bi dañu wax membre majeur di fora loolu la ñu wax képp ku nga xamante ne yaa ngi liggéey ci fora bi. parce que premier jour bi ñu bi mu amee dañu waxoon ñu ne chauffeurs yi si la bokk man leen chauffeurs yi man mënu ma wax duñu duñ si bokk mais nag su fekkee préfet ñëw na mu boole leen ci man mënu ma ko bañ keneen ku dul man tamit mënu ko bañ ñu yeewu adjoint préfet ci boppam ñëw mu ne ma képp ku nga xamante ne yaa ngi yëngu ci fora bi te ñu xam la ci fora bi yow ci nga bokk yaa ngi dégg mun ne ma sax mun na am nit nga bañ ko xam fekk ci fora bi la nekk mais keroog ñun ñu ñu contesté ñi ñooñu kenn xamu leen fii nii waaw bi ñu leen costé euh, bi ñu bañee tamit ne gars yi tamit ne ñoom dañu wax ñu ne ñoom nañu dem ñoom lu ñu lu ñu am nañ droit ñun costé euh, lii nu mu tudd bind suñu kayit mais amuñu droit baare affaire bi loolu nag la ñu def léegi nag tey la bind bi jeex balaa ñuy dem ci élection nag ñun dañu bëgg dem ci élection yu wóor yu leer mais koo xamante ne moo la mën day wañaar sa loxo ngay dem moom élection c'est pas l'appel ngay dem élection loolu nag moo tax ñu bëgg autorité yi ñu jël ci seeni mesure ñoom ñoom ñoo ñu féete kaw ñoom ñoo yore suñu sécurité yaa ngi dégg parce que am na ñoo xamante ne ñu ngi fi ay organiser ay nervi sax di ñu di ñu attaqué di n'importe quoi waaw li nga xamante ne teguñu ko fen daral bi ñëpp ñoo ko bokk am na ay sénégalais am nay mauritanien am ay guinéen même ay nigérien ñu ngi fii ci daral bii nii Afrique de l'Ouest mooy dara bi gën mag si Afrique de l'Ouest man mii di wax yow dem naa daral yu bëri ci biir Afrique mais daral bu mel ne bii amul fen ñun nag li ñuy wax li waxuñu pour nañ ñu may xaalis waxuñu pour nañ ñu faral waxuñu dara képp nga xamante ne moom la daral bi wóolu nañ jël ñu jox daral bi mu liggéey daral bi mais nag kantaan nag di menacer ay nit naan leen danaa la def nii danaa la def nii loolu amul sens te ñun après ñun rek ñun ñoo fi nekk ko daral bi ku gagné tamit ne daral bi rek moo gagné kenn gagnéwul daral bi mooy gagné noo xam nga nit moom su fekkee da nga ragal dem élection doo wax kaay leen ñu bindu doo bàyyi sa temps pendant 15 jours yaa ngi toog si benn place yaa ngi dégg mais nag dégg naa am am na ku ma dégg mu ne. dañoo xam ne dañoo daanu moo tax demuñ élection ku xam ne da ngay daanu kooku kay warul jaroo yaay ku xam ne balaa ngeen dem élection xam ne da ngay daanu kooku yow warul yaa ngi dem moom élection